dal leen ak jàmm ci seen flash d'information ñu fas ne jukki leen li xew fële ci assemblée réeloowu leen ni tey député yi dañoo war a voté ab loi bu war a dàq élection yi ba fi ak 6 mois loolu nag waa PDS ñoo ko jiite ñoom nag waa benno Bokk Yaakaar dañu leen ciy jàppale député yi faree ci PDS ñoom dañoo bëgg soppi article 31 bu constitution bi nga xam ne dafa wax président bi dafa war a organiser élection entre 30 ak 45 jours avant mandat bi di jeex ñoom nag dañoo bëgg a def lii tubaab di woowee dérogation maanaam xalal Macky Sall six mois loolu nag bu amee dafay am njeexital ci article vingt sept bu constitution bi nga xam ne moom dafa wax ni président bi cinq rek la war a doon mandat président bi cinq rek la war a doon te benn yoon. rek la ko mën tegle léegi suñu mayee Macky dérogation loolu day waroo ak li article 27 wax fii mu nekk nii nag loolu mooy sax modification article 37 dafa nar a dindi parrainage citoyen yi loolu tamit bu candidat bu amul ay député wala ay maire wala ay président conseil départemental do bokk ci élection yi fu mu toll nii waa vote bi du am ndax kii di Lamine président groupe parlementaire moom dafa assemblée voté sans débat loolu nag moo ngi judd ci temps bi question préjudicielle yi jël ndax balaa ñuy dugg ci débat yi waa yeewi askan wi dañoo laaj pour ñu génne décret bi dàqal élection bi waa Benno Bokk Yaakaar nag nee nañu du député yi nañu ko laaj gouvernement bi léegi nag Guy Marius Sagna moom taxaw na ni kenn du ko fi voté lii moo fi ruus ci ay xibaar jërë ngeen jëf